waxtaan bi nag dañu ñëwoon pour indi ay leeral quelques éclaircissements par rapport ak sortie bi nga xam ne sëñ Abdou Samad def na ko euh, bërki démb di wax ne dafa génn ci Pastef Touba waaw ba ñu gis presse bu bëri titré na euh, un grand responsable jóge na Pastef Touba am ñu dem ba exagéré sax na cerveau de Pastef Touba dem na muy loo xam ne lu ñu reetaan loola euh, ndaxte moom occupé wul benn post de responsabilité ci Pastef Touba bokkul ci benn commission carte de membre sax amu ko bu fekkee am na ko na ne ñun ñëwee suñu souche yëpp donc defe naa ne partie bala nga caa bokk il faut nga am carte de membre te moom mësul jënd carte de membre sympathisant la beneen bi ci topp bu ñu nee cerveau xanaa cerveau day am ñaari nit ci ginnaawam te wax dëgg yàlla gis nañ ne amul benn cellule bu mu mës a installé Pastef Touba les militants de Pastef Touba 90 pour cent xamuñu kan mooy sa Samat donc je pense que loolu moom euh, comme ni ma ko bindee bërki dem rek marte bu mu dóor ñi ko financé la yoonu murid ku ci nekk xam na ne daa am nu muy doxe te ñun ci politique lañ nekk waaye yoon wi ni muy doxe suñ kilifa la ci ndax suñ mag la ci yoon wi waaye li Babacar wax du ma ci dellusiwaat ci dara ndax lépp yaakaar naa leer ndax parti politique muy association muy kuréel gu mën di nekk bala nga caa bokk daa am lu la cay boole la la cay boole d'abord mooy am nga am carte ba carte ba wa nga xamante ni moo composé fe ko te comme niñ ko ñëpp waxee moom kilifa moo ko boole ak ndax ñëpp xam nañ ne sëñ daan mbàkkam Cheikh Abdoulaat doom ju mu tuddee doom ju mu tuddee nijaay Ousmane Sonko ju bokk ba yaayam ndey ak baay bu du dund sama moroom la kon relation diggante sëñ daan ak Ousmane moo jur relation sëñ Abdou Samad ak président Ousmane Sonko muy relation boo xamante ni du relation bu sori ndax ab relation li koy dëgër mooy di wootante di gisante te ragal na rafet naa njort ne biñ gisantee kër sëñ daanum sëñ Abdoulaat tënk fa la ñu tënk mu jógewaat fi ma ànd ak moom ci otoom ñu dem ba Dakar président Ousmane Sonko recevoir du ma ne président Ousmane Sonko recevoir ko mais moom mu recevoir président Ousmane Sonko ndax bi ñu agsee li may wax àdduna bépp nga koy seetaan te ruus naa wax lu dëgg Ousmane di ko dégg moom bañ maa nawloo Ousmane wala Abdou Samad di ko dégg xam ne lii Cheikh Thioro di wax du dëgg loolu jomm naa ko kenn kenn jur lu ma ko ci àdduna bi ñu agsee Dakar moo président Ousmane Sonko ne ko sëñ Abdou dalaa bëggoon a gis mi ngi Dakar boobaak léegi gisuma loo xamante ni Abdou Samad def na ko ci parti bi muy moyen muy carte de membre muy dara kon kooku moom mën naa jàpp ne bokkul ci parti bi kon nag comme jàpp naa ne leer na nañ te boobaak léegi diggante 4 mois lay def te a koy couvrir amul a taxaw daane mas ko gis ci benn euh, bi toll noonu naan Pastef Touba perte na ak ruwam xanaa ruu doo ko perte 4 jours di ko dox ruu kay koo perte da dee te Pastef Touba mi perton room 4 jours dèjà mi ngi ñëw fi def conférence presse kon loolu wax ju yàqu la man li ma jàpp ne moo moo moo normal ku ci nekk am nga droit bu fekkoon ne dafa def point de presse rek war ne nekkoon naa sympathisant Ousmane Sonko bàyyi naa Ousmane Sonko dem dooree ñu gis ko jox benn importance mais tax ñu def point leeral mooy li mu de waxaat ci point de presse bi wax ne euh, bi mu ko bàyyee léegi sëñ Mountakha rôle bi mu ci joué waroon naa ñëw delloo ko njukkal sant ko gërëm ko may xamal ne moom du point vocal président Ousmane Sonko ci Touba du coordinateur am ñoom ñaar duñu wax téléphone kon li Ousmane Sonko di séq ak Serigne Mountakha loolu dina ko ump du ko xam ba adduna tukki loolu moom pour mu leer du ko xam te yoonam du ci nekk it te président Ousmane Sonko Serigne Mountakha Bassirou xam na fi mu ko teg Ousmane Sonko it xam na fi mu teg Serigne Mountakha Bassirou xam na fi mu teg kilifa diine yi nekk fi sax naan Ousmane lii la séq ak kilifa diine loolu ndax ñoom mënuñoo teg personne bañ xam li Ousmane séq ak kilifa diine yi ndax ku ci nekk jàppi nga sa doom jàppi mooy leer te ndax damay faral di wax bis bu yàlla sàkk te kàddu yu ma gëm la Ousmane Sonko président Ousmane Sonko borom deret ju wicc du ko contre loolu mënut nekk c'est impossible ndax homme politique boo xamante xoolee diine l'islam di nga ko gis ci moom boo koo xam ne dëgg moo la ñor kooku amoo droit contre ko waaye man wax ne tout le temps rek àdduna moom nii lañ ko man nii la mas di nekke moom day am ñu ne fii am ñu ne fee ñun fu waay nekk dañ la koy respecté bàyyee laak fa nga nekk waaye rik bu politique tax ngay wax loo xamante ni gëmoo ko wala ngay wax loo xamante dëgg man nag jàpp naa ne lépp comme ni nga ko waxee am na lu ne ci gannaaw li ne ci gannaaw it mooy la neewoon ci gannaaw ba Ousmane Sonko yëngoo ba léegi ndax ñu def livre solution boobu am na ñu daan wooye ay imam ay certains imam ñëpp yaa ngi fàttaliku ñu génn di ko attaqué naan ay salafiste lañ ñooñu ñoo ne ci lii gannaaw rek imam yoo xam dañ leen du man dañ leen rajo sax mais dañ leen dàq fañu daan jiite ñoo fi nekk ay courtier marabout ay ay ak ay ay ay ay Marème Faye Sall li ma bëgg wax ki may wax la xam na boppam te dina leer ci moom du ma ko tudd imaam yoo xam dañu leen rajo fañu daan liggéeyee ca ñu ñëw fii nekk ay ay ay recrutement lay wax di recruter ay nit loolu dafa dafa ci réew mu normal surtout koo xam ne imaam lañ lay wooye waaw man lay wax am na li may wax yéen a ko mën a camaraay baax waaye imaam yoo xam dañu leen tudde ay imaam nga xam dañu leen dàq fañu daan jiite ñu ñëw amul amul dara lu ñu war a def lu dul topp ñaari sagar nit ñoo xamante ni ñaari at ñoo la fi des wala ñetti at di leen dungur di leen jàppe comme yàlla loolu lu jaaduwul la lu la